Sadio Mané muy jóge ca na loolee daanaka pexe amatu ca bu ngeen nu toppee ci vidéo bi Fabrizio Romano nga xam ne daanaka nekk na koo xam ne ci wàllu taskatum xibaar ci sport adduna bi moo ko poñe abonnement yooyee mën ngeen koo coppate ndànk bu dee dëgg ngeen bëgg laal leen ma kër yi ndax information yi nga xam ne moom lañ fiy joxe dana koy coytu ba mu wér euh, coytu ko ba mu baax donte tamit information yu ñuy joxe yenn saa yi du nu neex ndax ñancoo national nootur Sadio Mané Sadio Mané mi nga xam ne daanaka moo nu ñamal Coupe d'Afrique ca tànkum di jooram boobee nga xam ni moom la coppati woon bal ba mu dugg te bu ko neexoon loolee lépp mënoon na ko ca bañ a fekk ñancoo moom moom la ni ñëw ci ay mbiram dugal na ab bit ñetti bit yi nga xam ni dóor nañ ko bayaar na ci week bi nga xam ne moom la ñu génn loolee nag teewul coow li ni kur foofee ca Allemagne waaye bu nu sukkandikoo ci journaliste bu xariñ bii di Fabrizio xam la na ni Sadio Mané mii ngeen di gis ak taxawaay bu mu mën di am ci l'été prochain bii nga xam ni moom dëgmal du bokk ci équipe bu Bayern bi te it dana génn ca Bayern ndax marché boobee danañ ko ca teg teg ko ci marché bi nag taxul mu jar donte équipe gi koy bëgg dana bari lool waaye gone gi la ma ko waxoon laa koy wax bu mu jaxasee li nga xam ne mooy carrière bu mu tasaare carrière am na ne tekk ni soow mu way xool lu leer loo xam ne moo ki agent ak ñi koy conseillé bokk ci Bakary Cissé mii nga xam ni daanaka sunu xarit la nekk fii nga xam ni moo nekk ci ndakaaru loole tamit daanaka dana am solo bu baax a baax bu ko defee mu xool li nga xam ne moo ko annoncé mu dem waaye fi mu toll nii li gën ci moom dëgg-dëgg daanaka su ko mënee moom Sadio Mané ñancoo bayar na taxawaay bi nga xam ne gaañ ñi ña ngi koy am ak moom mooy mu jóge ca Bayern na loolu sunu xalaat la teyit it ngeen nangul nu ko ndax dana am solo bu baax a baax li nu bëgg mooy avantage su gone gi mooy avantage su gone gi dëgg-dëgg nag daanaka bu nu juumul lii nga xam ne moo fa nekk ni ci Bayern na bu fekkente ni amul benn changement daanaka mu càppati dox doxam loolee mooy gën ci li nga xam ne moo nekk